asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi tudd Maymouna Sy. maa ngi tudd Maymouna Sy. jiite association féminine pour le développement global AFDEC. Euh, ñu ñëwoon fi tey suñu journée bi tey nekk journée boo xam ne international la trente pays bokk ci mu nekk loo xam ne tey euh, dafa soxal képp koo xam ne da ngay wax ashhadu an laa ilaaha laa nekk jullit mbiru Palestine ak li nga xam ne mu ngi xew Gaza mu nekk loo xam ne ñëpp la yitteel te kenn réerewu ko ci àdduna si gis nañ li nga xam ne mu ngi fay xew ci suñu jamono ji nooteel gu mat sëkk gi nga xam ne ñu ngi ko fay wane ci mën doole gi nga xam ne mën nañ ko doole ji jullit ñi di leen bunduxataal waaye di leen rey di rey ay xale yu ndaw ak ay jigéen ak ay góor di leen génne di leen toroxal di daaneel seen kër yi mu nekk loo xam ne teguñu ko fenn kenn képp koo xam ne rek yow am na luy yeewu ci sa ci sa ci sa yaram loolu yow danga ko war a bañ war koo naqarlu même bu dul jullit dafa nekk loo xam ne lu kenn kenn kenn benn diine nanguwul loolu benn diine mayewul loolu muy nooteel ci kaw suuf te loolu la waa Israël di wane Palestine mu nekk loo xam ne lu mat sëkk la àdduna si yëpp di ci teg seen bët ñun jigéenu Sénégal mu nekk loo xam ne lu ñu naqari la ñun tamit ñu ñëw tey di ko naqarlu tey taxaw fii ci kanamu àdduna si yëpp di wax ne Israël ne ko taxawal taxawal li ngay def teguloo ko fenn li ngay def tegoo ko fenn tegoo ko ci benn yoon di sàkku ci jullit yi nekk ci àdduna si yëpp rawatina Sénégal nañu taxaw ci suñu wetu mbokk jullit yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne wax ne képp koo xam ne yitte woowoo mbirum jullit yi bokkoo ci ñoom te jullit yi dañoo war a mel ni benn jëmm boo xam ne lu lay metti ci sa jëmm gi rek day mel ni yaram bi yëpp moom mooy metti bopp bi buy metti day jàpp yaram bi tànk bi buy metti jàpp yaram bi même wee bi buy metti jàpp yaram bi yëpp kon ne la nga xam ne mu ngi xew fële ci suñu mbokk yi daf ñoo ndax dafa mel ni comme ñun la ndax réew waxuma la dara mais dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lañ ko rañaane woon dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xam ne amul benn yonent bu yàlla wàcc ci kaw suuf te tànkam dëggul ci suuf boobu mu nekk suuf soo xam ne suuf su yàlla barkeel la suuf su tedd la suuf fu yonent la suuf fu ñu baax ñi la kon dañoo war a dox guddeeg bëccëg def lu ñu mën pour suuf soo dellu ci loxo jullit ndax ñun ñoo ko moom ñoom amuñu ci benn àq lépp nag loo xam ne dañ koo jël ci force kenn mënu koo jëlaat dudul ci force jullit nañu xam loolu nañ xam ne suuf si ñun ñoo ko moom ñun jullit yi ñoo ko moom te il foog ñun ñoo ko mën a dem jëli jëliwaat ko suñu bopp kenn mënuñu koo jëlal ku dul ñun lépp nag lu ñu jël ci doole ci doole lañ ko war a nangool ñiy wax waa Palestine leen ñu ngi yéen ñiy wax jigéen waa Gaza ñu ngi yéen ñu ngi ci seen wet dinañ leen jàppale ci côté bu ñu mën lu waay am lu waay am ci alal lu waay am ci kàddu gu rafet lu waay am ci wax ju rafet nañ leen taxaw jàppale leen ndax amu ñu dul ñoom ndax suñuy mbokk lañ suñuy deret lañ suñuy xeet lañ kon ñu ngi ci seen wet ñu ngi leen di taxaw di ñaan borom bi subhaanahu taala yal na leen yàlla may victoire yal na leen yàlla yàlla may ci seen kaw noon bu bon bi muy Israël yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def kon aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum fàttali ñu tur bi fàttali ñu tur bi Maymuna Si man maa jiite association AFDEC association féminine pour le développement global AFDEC man la soxna Ndeye Khady Camara bokk ci association AFDEC bi euh, ñu nekk ay jigéen ba pare nekk ay yaay nekk ay mag nekk ay jullit aussi bëgg a nekk ay jullit yoo xam ne ñoom la yàlla soxla en tant que ay jullit parce que yàlla nee na yaa ayyuha allazina amanu taqullaha xaqa tuxaati wala tamutunna illa wa antum muslimun nee na na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal na préparer seen bopp de bu kenn ñëw ci man fekk nekkoo leen ay jullit mm-hmm. te nekk jullit nekkul si làmmiñ mais nekk julit ay jëf la parce que yàlla lu mu santaane ci alquran dafa naan yaa ay ayyuhal lazina amanu mm-hmm. yéen ñi gëm yàlla allazina amanu wa amilu la wax mm-hmm. wa amilu solihat ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba pare di jëf-jëf yu baax te jëf yu baax mooy looy jëfanteeg sa borom mais looy jëflanteeg sa moroom te yaakaar naa ñun ñi nekk ci kaw suuf ñun ay nit lañu ñun ay nit lañu ginnaaw nit ay bàyyi ak lépp loo xam ne nekk na ci ci kaw suuf yàlla da ko fi wàcce mais lu à part doomu aadama yàlla dafa wàcce lépp ci kaw suuf pour teralee ko doomu aadama kon amul lu gën a màgg doomu aadama suñu génnee sax ci domaine diine mais ci wàllu nite dafa am loo xam ne nit ki sa nite waru la ko may rawatina nga mën a tiim sax euh, jël weñ sax rey ko wala jël benn animaux sax rey ko sa nite waru la may rawatina ay doomu aadama ay nit kom yow mun a am fit di jàkkaarloog ñoom di leen rey kon kooku dépassé na nit nekkatul nit ulaayika kal an'aam bal hum adall ñooñu comme ay mbaam wala sax ñoo raw ay mbaam waaye nag dinañ xam ne yàlla ba muy bind suufam bi du ñoom la tàggu xëñ na nag yàlla lii yàlla naan innama numli lahum li yazdaadu mm-hmm. isman wa kufra mm-hmm. alaysa kazalik oustaz mm-hmm. foog naa noonu la mooy yàlla da leen di boyal jox leen lépp luy uti mhm. pour ñoom foog nañ ne adduna bi ñoom ñoo koy diriger ñi ngi nax seen bopp mhm. bis dina ñëw lépp lu leen yàlla joxoon lun daw rek mhm. waroon nañu gëstu histoire xool ñu leen jiitu woon ëppoon leen lu ne mais tey anañu ani firawna ak ñu meloon ne ñoom tey xuwa bu ñu mënti am rek amoon na ñu leen ko ëppoon tey te suuf mi ngi leen di xaar xamuñu leen nag islaam yàlla moo ko taal ku bëgg am jàmm si àdduna am jàmm ci àllaaxira mhm. mooy gënal xam bu mat mais soo nee da koy fay sa bopp ngay fal ngay fay yàlla nag moom su rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé yow lay effacé xamuñu ne jullit tànka rayoo ko doo ko dëgërloo ñun islam lañu gëm nañ ñu rey gis nga waxtu waxtu dee su jotee ku dund doo gor waxtu dee su jotee ku dund doo gor te dinañ xam ne yàlla moo fi nekk lu leen neex la ñu def dañuy rey ñuy ñëwaat dañuy rey incha allah te incha allah allah islam mooy daan lan lañ jotee ak ñoom wa ma naqamu minhum illa yuminu billahi al aziz al lan lañ jotee ak ñoom lan lañ leen def dara léegi ñun ñëpp a ngi toog di xool ragal leen ñoon ñooy ñan walillahi li izza wali rasulihi walil muminin te daan gi ak personnalité te ko moom ak yeneen bi ak ñu ko gëm suñu naree dund fekk dañuy torox islam moo ñu teddal ku fi bàyyi islaam jël deneen da ngay torox ñoom duñu mës a tedd nañu def lu leen neex mais duñu mës a tedd islam mooy dem ci kanam nañ leen rey dañuy dekk nekk ay shahid incha allah yal na leen yàlla boole ci suhadaa yi ak saalixiin te am nañ ci yaakaar ñoom ñooy daw waaye islam du mës a daanu lu leen neex nañ leen def ñun pare nañu wallahi waroon nañu am occasion pour mën a fekk si leen foofu kon occasion bi ñu am si suñu dund bi mm. occasion bi dinañ ci profito dinañ ci profitoo ndax ñoom ñi ngi seen ginnaaw te incha allahu rabbi ñooy daan hmm. islam mooy daan mu neex leen mu naqari leen nañ jël lépp luy arme lépp luy moyen ci àdduna mais ci suuf rek kenn du leen nawloo kenn nawloowu leen du ñu dara ñu tus ak ñi nga xam ne dañ leen ragal ñi nga xam ne soo gëmul yàlla leneen lu dul yàlla da nga koy ragal mais yàlla kese soo ko gëmee leneen lu dul yàlla da lay ragal soo ragalee yàlla leneen lu dul yàlla da lay ragal soo ñemee yàlla leneen lu dul yàlla da koy ragal yan nañu yàlla saxal ci islam suñu mbokk yooyu yan na leen yàlla jàppale te incha allah dina leen jàppale yàlla su na mee defar day mel ne kuy yàq ñu foog ne day yàq fekk yàlla day defar nit nit nit doomu aadama ci mota dem mooy feeñ ci loolu yàlla moo namm wa nuridu an namunna ala allazina studifu fi ard wa najalahum aimma wala jaalahumul waarisuun yàlla moo nam ma yëkkati leen te incha allah islam day gën a dem ñoom seeni doom haza wasalaam.